acca mi ngi noonu Umar ñi ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp nag ñi nga xamante ni ñoo ngi woon fële ci Yoff ak Cambérène ci mhm. appel bu Seydina Limamou Laye ñi mhm. nga xamante ne nii doon nañ ko amal ci talaata talaata ji ak àllarba ñu gis ni nag euh, président Macky Sall mu ngi fa woon ak premier ministre bi euh, pardon auto pour moi ministre de l'intérieur mhm. Antoine Félix Diome moom ñoo nga fa teewoon ci appel bi lee euh, tenir nañ fa nag ay discours wax ci li nga xamante ni nii moo di jàmm ji nga xamante ni nii ren moo nekkoon thème bi muy wax ñu ngi woote waat ñoom jàmm ci seen biir waaye nag euh, dañuy gërëm nag discours ki nga xamante ne nii moo di euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk ci famille Laayeen bi ñoom it yëkkati nañ fa ay kàddu yu am am solo di wax ni jàmm boo koy woote day fekk yow nga nekk ci d'abord. Mm-hmm. naka nga gisee euh, président Sall dem bi mu dem foofu ak Antoine Félix jomm li mu woote si jàmm ji. léegi lu war la dem bi. Mm-hmm. parce que bu cérémonie yu mel ni amee. Mm-hmm. ministre de l'intérieur dem. mais président Macky Sall dem bu doon beneen njiitu réew tamit noonu lay demee. Mhm. mais aussi tey am na ñeneen ñu bokk ci opposition tamit di fa dem parce que cérémonie yi day doon comme li may faral di wax ci wàllu diine. Mhm. mais aussi tamit euh, ci wàllu politique nga mën a dem euh, parce que sëriñ yi danoo boot mbooloo mu yaatu te mbooloo moomu fu ñu féete rek day ci wàllu politique day diis moo tax des fois ku ne di fa dem di uti dara bu dee ñii day dem pour uti ñaan ñi dem pour ziar seen sëriñ. ñii moom dañuy dem pour ut ay militant maanaam dem ca kër ga saafonteeg waa kër gi pour ñu yëg ni ñi kat yëg na leen fonk na leen kon président bu jugee keneen jug loolu jaadu la ci wàllu politique te loolu la ñu tàmmal ci mim réew. Mm-hmm. léegi nag bu dee wàllu jàmm jàmm moom ñaara koy dox man mii bu ma bëggoon jàmm tey ji yow bëggoo jàmm ñu seq ko mm-hmm. fu ñuy mujj rek mooy mbëkkante. wallaay te nag euh, da am lu seriñ Cheikh doon wax. Mm-hmm. mu ne jàmm ji ëpp baaxul. maanaam jàmm neex na waaye nag jàmm ji ëpp baaxul xam na loolu dafay laaj. jàng dafay laaj tamit gisin mooy jàmm ju ëpp fu ko waxee rek mooy li maam Abdou doon wax naan nangu naa toog ci suuf waaye nag nanguwuma ku jël ay tànkam di ma ko teg maanaam jàmm jooju ñuy wax fii ci réew di Sénégal ki ko war a njëkk a bëgg waaye ki ci një war a njëkk a jiitu moom mooy kilifay diine yi xamul dama la kilifay diine yi moom jàmm ñoom da leen a arrangé mooy bu réew mi doon tàkk tey ku ne mën na dem. taalibe yeeg yëpp mun nañ génn réew mi dem mais sëriñ si mun ñu dem mm-hmm. maanaam même président mun na daw génn Ousmane sonk mun na daw génn mais sëriñ si ñoom mënuñu génn réew mi maanaam li ëpp ci réew mi ñoom ñoo ko moom te nit nag du bàyyi alalam di dem kon moom ñoom ñaam jàmm rek mooy li leen war kon li Serigne Touba doon wax moo gën fa ñu jëm waaye te moo gën fii mm-hmm. kon ñoom loolu mooy li leen war mm-hmm. léegi nag bu ñu demee ba egg ci ni nag jàmm jooju lan moo ko war indi parce que bu ñuy wax jàmm du rek dan naan jàmm-jàmm ne lan moo ko indi pour man li war a njëkk indi jàmm ci réew mi mooy ki yor yat wi dóore dóore yor doole du nguur ñu am courage yu jàkkaarloog moom na ko yat wi téye ko maanaam baal dóore bi waaye tamit ñii tooñ ñu leen bàyyi leen tooñ maanaam ñaar la ñii tooñ di jalgati ak ki yaru yet wi dóore mais bu dee ni kiy dóore day dóore te kenn defu ko dara wala day dóore pour napp nit ñi parce que bu nee la lu ëpp téeméeri nit ñi ngi ci kaso bi ñu yóbbu leen instruction ñuy yóbbu leen fee ci loo xam ne tey jii mun na am bu doon nii rek danoo nekk ci réew mu normal loolu du am. loolu mënta a jur jàmm. beneen bi ci topp mooy euh, mooy ki war a jug ne moom dafa bëgg doon candidat ñetteelu yoon ay nitam doon ay naafeq doon ay triant naan leen mandat bi 2019 la dooroon. Mm-hmm. te en 2012 mu def prestation de serment mooy président Macky Sall lu tax man sama kàddu 2012 maanaam ka mbiri mandat di ci ëpp loolu la parce que man dama jàppoon ni ak Macky waratu waratunu dundu président boo xam ne tey jii dañuy toog ñëpp naan troisième mandat ba débat boobu ci Macky Sall dafa doon xewi ba beneen njiitu réew bu ñëw ci réew mi du sañati wax sax mbiru ñetteelu mandat. mais Omar ñu fàttali ne président Sall ba léegi nii àddoogul ci mbir moomu ay nitam ñooy xel di jéem a dugal ci bopp nit yi que ni mën na nekk mais moom en personne moom mi nga xamante ne nii moom mooy ndey mbi léegi ba léegi waxagu ci. waaw parce que bu dee ni képp ku ne troisième mandat mu neexal la képp ku ne ànduma ci mu dàq la. Hmm. maanaam moom loolu la bëgg parce que wolof yi dañuy faral di wax naan mag am na loo xam ne mënu ko waxal bopp mais ku ko waxal mu jël foofu la Macky Sall toogee. Hmm. maanaam am na loo xam ne mënu ko waxal boppam ne day ay nit. waaye ku ko waxal mu jël. maanaam proverbe boobu moo ñëw ci Macky Sall képp ku ko bëggal troisième mandat bëgg na la waaye ku képp ku ko bañal bañ na la. Mm-hmm. te dama jàppoon ni sëriñ si tey jàmm ji li jiitu ci réew mi. Mm-hmm. mooy ñu ni ko ah président mm-hmm. ñettul mandat mbaa sa xel da cee ne bu leen nee waaw ñu ni ko génn ci bu leen nee déet ñu ni ko gongo. ñu ni ko ah sa diggante ak Ousmane sonk lu ci ne. parce que damay wax ñett yi mën a taal réew mi mandat ci la digganteem ak Ousmane Sonko. mais boo dégloo ah. discours euh, ki nga xamante ni moo di Antoine Félix Diome moom dafay mel ni fi mu toll nii ñu moom pour moom jàmm euh, euh, li nga xamante ne ni moo di ay wi ci côté opposition bi la nekk parce que dafa dem ba indi sax terme gatsa gatsa boobu noonu nañ ko remplacer ak jàmm est-ce que nekkul une sorte bu nga xamante ne ni genre gaaral lay doon. jigéen moo wax la benn mbir. Mhm. maanaam moom. xam na Ousmane ko fa mu toogoon di wax garsa garsa nga rafetlu kàddu gi nga bañ ko. fa fa mu ko waxee mën na am ni turbule woon pour waxee wax jooju. mais est-ce que ci officielle lan war a jaaree pour di tontu opposition. keroog xaw wax naa ko ci télé mooy cérémonie officielle bu ñu koy wax man dama jàpp ne foro doon ndaje moo xam ne buur day toog jàmbati taalibe yi parce que bu ñu dee wax sëriñ si taalibe yi ñoo tax. Macky Sall taxul benn sëriñ doon sëriñ mais bu nee diw sëriñ la rek ay taalibeem ñoo tax maanaam taalibe yi. danoo am jafe-jafe ci wàllu xëy taalibe yi ci wàllu mbay mi ak napp gi taalibe yi ci leneen ak leneen tey jii dañ ci am ay jafe-jafe te ñoom mënuñu toog waxal ko seen bopp wala bu ñu jugee sëriñ si na leen jug leen toog leen fitna baaxul pour man bu ñu demee ba am cérémonie yu mel ni li jekkoon mooy bu ministre de l'intérieur wala président toogee ñu ni ko taalibe yi de bu ginnaaw bon waxee waxi diine at mii de lii moo ci seen jàmbat lii moo ci seen jafe lii lañu bëggoon maanaam loolu bu doon ni discours la boo xam ne tey jii dañuy toog waxtaanee ko maanaam ndaje mi day am solo loolu day neex loolu ba ñi toog yépp gis seen bopp waaye bu dee ni dafa war a doon benn turbine boo xam ne sëriñ si li ñu war a wax dañ koy wax ne mais ñoom Antoine ak ñoom bu ñëwee li ñu war a wax ñoom duñ ko wax parce que li gënoon mooy. ñu ne Cambérène ñu ne dëkk lébu la bu ne lébu wax wàllu napp. yaa ngi gis bu nu waxee ci VDN 3 bi dama lay jox benn gàmm li amoon. ci VDN 3 bi benn naan Moselle së maanaam sëriñu laaye di mm-hmm. maanaam dañ koy dox ci digganteem ak taalibe yi ndaxte fi moselle bi ne est-ce maanaam yooyu ñu leeral ko ci kanamu nit ñi mm-hmm. mais aussi tamit te gindi ci taalibe yi ba bu déwénee mm-hmm. wax jooju kenn du ko waxati maanaam dafa waroon nekk une turbine boo xam ne nekkul pour tontu Sonko wala pour tontu opposition mais dafa waroon doon turbine boo xam ne ngir mën a rassurer sénégalais mais aussi pour mën a jaajaat taalibe yi ba ñu gën a seen sëriñ waaye tamit jafe-jafe taalibe yi bi taxaw ci kanamu nguur gi jaare fa mu doon occasion ngir mu waxaale leen jafe-jafe yi taalibe yi di dund bu boobaa ndaje mi waxuma amul njariñ de waaye day am njariñ loolu waaye nag bu dee day permettre benn Antoine pour muy tontu Sonko man damay jàpp ni loolu ca xajoon na feneen dul ci fi ñuy waxtaanee diine nag mm. pour man Antoine dafa def hors sujet. hors sujet waaw parce que ndajam diine diine lan fa war a wax. mais thème bi jàmm la jàmm la woon Omar. mais Antoine bëggul jàmm. <laughs> Antoine Félix Diome bëggul jàmm noo xam te dëgg. Antoine bi fi ñëwee ba léegi doon ministre de l'intérieur lan moo ah. xew ci réew mi ci loo xam ne tey jii ay excès la bi ci mujj mooy bi bi ñu mujjee jëlee Ousmane Sonko ci corniche bi. Mm. loolu ko bëgg jàmm di nga ko santaane. ah en tant que ministre de l' intérieur ak li mënoon a jur ci réew mi ku bëgg jàmm di nga jël Ousmane Sonko di ko yóbbu résidence surveillée ci loo xam ne justice moo war a taxaw ni diw dañ ko war a yóbbu résidence surveillée nga def ko say bëgg-bëgg ak say bakkan ba tax ngeen di daje trois heures du mhm. deux heures du ca palais ba pour dindi ko par que bu dul woon loolu réew mën naa tàkk mhm. parce que bari na fu tàmbali woon di baax ba ci université bi nu xëyee. ci la parce que Ousmane Sonko waa États-Unis dañ ko invité woon seen ambassade. pour ñu waxtaanee léegi bëgg ko bloqué ngeen jëfandikoo seen bakkan jëfandikoo seen doole ku bëgg jàmm dina fekk Sëñ Assane Mbacké ca Touba di ko di ko téye nga ne yow da ngaa bëgg diine ji. ah di nga fekk waa Touba yi war a amal seen ko manifestation ca Mbacké nga leen di kar ca Touba la Sandiogou doon wax démb lacrymogène yi di jugee Mbacké di dali Touba. ku bëgg jàmm. di li li xew mujj xew yëpp ci élection yi ñu weesul di local di législative maanaam di rocc candidat di dugal candidat di annuler ay liste jàmbur. Mhm. ci ministre de l' intérieur boo xam ne dafa waroon a tëddee njaaxaanaay dama dama lay wax leen ci Antoine. Mhm. di nga opposition bi dañoo xaw ñàkk fayda te doye di. Ah. waaw dama koy wax. Mhm. parce que daa am loo xam ne nangu luñ koon Abdoulaye Wade. waruñu ko nangul président Macky Sall Abdoulaye Wade bi ñuy toll ci moment bi Cheikh Gueye moo nekkoon ministre chargé des élections xeex nan ba Ousmane Ngom nekkatul ministre de l' intérieur organisé wul élection on ne peut pas être juge et parti Barthélémy Dias da koy wax nee na ñun suñ combat bu njëkk dafa war a doon fexe ba Antoine du organiser élection Sénégal ndaxte élection yi mu fi mëjee organiser pour la première fois ñu ne liste titulaire bu opposition Yewwi du bokk ba tax Ousmane Sonko doonul député pour la première fois ñuy tànn ay maire yi du dem ak yu dul dem. Mm-hmm. loolu kan moo ko organisé. Mm-hmm. ministre de ne pour la première fois ñu joxe ay carte d'identité yoo xam ne tey jii. noonu maanaam nit dëkk li pour la première fois au Séné au Sénégal ñu dem ba département mel na Kër Massar ay élection des ay fan ñu def découpage découpage bi jeex ñu ne léegi dañuy képp ku yoroon carte d'identité carte électeur da nga koy renouveler Kër Massar. ci temps boo xam ne un mois la. Mm-hmm. bari na ci Kër Massar ñoo xam ne tey jii dañ doon voté. voté wuñu ci découpage boo xam ne ñi fare ci bopp réew mi rek ñoom ñoo ko doon def parce que dañ ko doon jiital seen bakkan mais di def loo xam ne lu leen neex la ministre de l' intérieur boobu gars yi bëgg ko bàyyi fu ne mu tambaambala fu ne mu teg fa tànkam mhm. tey ji ministre de l' tey ji lan la waroon xumtoo balaa muy wax waxi politique mhm. dafa waroon wax ci kaarangay askan wi mhm. ministre de l' boo xam ne tey ji pour la première fois au Sénégal ay corps d'élite yu mel ne BIP wala ki GIGN di daje pour jëli benn opposant politique mu munoon jur lu ne parce que c'est un peu moo tax nit ñu dugguñu ñu ci mais booy waxtaanee nit ñi ci suuf maanaam boole ñaari corps yooyu rek ci wàllu maintien de l'ordre rek erreur la nit kooku loolu lépp di ko def ñu fa mu toog ñu fay waxtaanee jàmm mu naan jàmm la bëgg mhm. jàmm pour man Antoine Diome bëgg ko mhm. Antoine Diome bu bëggoon jàmm xam li mu njëkk a def mhm. bàyyi tooñ ak bàyyi jaay doole gi mu nekkee fii ci réew di Sénégal te nag ci wàllu diine ji Ousmane Sonko da cee nekk victime ci lu bari dama lay lenn du mu tudd turu kenn dafa am benn sëriñ bu usmaan Sonko di seeti sëriñ bu baax. Mhm. sëriñ bu noppi kenn du ko dégg ci dara man de mosuma dégg kàddoom ci àddina mais Ousmane Sonko daal dina fa dem yor ay xasaay itam ñoom mais ji heure bu fa demee dañ koy photo photo yooyu nag dem bay déranger kenn ci nguur gi kenn kooku xam lan la def ñëw wër sëriñ ba mu ne leen mënuma tee waa ji ñëw fa waaye bis bu fa ñëwatee bu ko kenn photo di ko wane ndaxte loolu da koy jox doole mu xëpp ci xaalis bu bari pour bëgg a jaxase Ousmane Sonko ak sëriñ si mais aussi dem ba mu fay dem neex ko te kooku di wax loolu tey jii moom moo ne jébalu na ci président Macky Sall te ay at ci ginnaaw dafa noonu jébalu na ci sëriñ diw mm. léegi kay moom mun naa wax ni nekkatul taalibe sëriñ boobu léegi taalibe Macky Sall la waajooju léegi nag xam ngeen ku mu doon boole leen <laughs> du ma egg ci tur bi <laughs> loolu tax ma ni la seen wax yooyu ay waxi caaxaan la uh-huh. di nga jàmm bi am ci réew mi nguur gee koy war a njëkk a bëgg nguur gi moo ciy suuxa dox ko wax ko waaye jàmm nag bu dee day am mm. ñu ne heure bi ñu duma opposition bi jàmm am na mm. waaye bis bu opposition bi di fayu réew mi amul jàmm mm. loolu nag moom mooy wate tax jëm ci benn boor te nag kilifa day maandu